Cher, je euh, vais tout à l'heure la commission technique alors euh, nous avons koy doux. Euh, pourquoi député de l'opposition bi mu commission technique peut-être soulever cette question alors nous tamit comment comment l'expliquer parce que nous, avons japonais, ils sont dans la manipulation est-ce qu'on peut en dire autant oui mais xam nga loi assemblée loi dit l'Assemblée. mais assemblée organisation bon bala mu doon dem séance plénière jaar ci commission technique jaar na conférence de président maintenant ñun ñëpp sénégalais yi tax ñuy voté loi bi démb la ñuy doog a dégg wax loi bi mu 2007 ak 2016 ak 2021 Et am et suñuy wax loi dafa am l'esprit et la lettre l'esprit et la lettre parce que la question du terrorisme Sénégal zone bi mu nekk xam nañ munoo nekk pétrole di nag almet almet nag mooy luy taal réew euh, yaakaar naa droit moom ñu ko ci chinois ñu ko ci dara ci suñuy des lañ ko bind te ñu koy bind gën ñu mais d'abord ñaawlu taxawaay ministre de la justice pour man c'est une catastrophe judiciaire man c'est assez mon opinion parce que tey ñun dañ que le ministre de la justice mu apporter ay à nos interrogations légitimes et citoyennes ndax coow na bëgg nañu xam mais il a fermé le débat benn tontu la fi tontu mooy député bu bokk majorité mu le reste des commentaires mu dem yamu ci moo xam langage la utiliser mais comme ministre la am na gëdd ak cër buñ doon xaar ci mais man bête parce que moi depuis le début ay bourde rek lay def et tant que nous ngi le même système où un ministre de la justice dépend d'un parti ou un procureur dépend du ministre de la justice Gombob rek la am beneen bi assemblée aussi Bini am bi Zator nekkoon nak bi Doudou wad nekkoon nak bi Lamine même système électoral moy am raw gàddu et tant qu'on aura ça on aura une majorité qui va dicter sa loi comme Abdou Diouf tenait à le dire maintenant revenons au texte euh, président je crois que ñun li waral nous, li du dara luddul liñ ci gis euh, par exemple euh, comme da nga yore document bi. loi bi loi bi loi bi da nga ko document bi ànd ak loi bi. ñu teg ñu samp baaraam. ah bismillah. Euh, les infractions liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication <coughs> récemment ñu le président di wax ketch, kacc bi te mu ngi doon wax ay en 2016 la force du clic fera face aux flics et aux flics kon tey dafa mel réseaux sociaux yi nouvelle technologie bi maanaam am lu ci nit di bindee wala lu ci wax ñu jàppee le terroriste ci réew mo xamni Sayer Kébé un jeune bindon na ben commentaire Facebook ça lui a valu quatre ans de prison ñu traité ko de terroriste relaxé ko ba tay fal la muju xel mu wëlbatiku ñu demaat président nga tegaatal ma fofu sa baram nga léral ma comme ministre mënuñu ko won léralal du dëgg ñu bindal ma fi les destructions dégradations et dommages visés aux articles 406 409 du présent code les dégradations des biens appartenant à l'État ou intéressant à la chose publique, l'association de malfaiteurs. Khalifa après nous, ngi à université parfois nous, ñu le bourse wala dara nous, dem toj bien pot de fleur fii yow étudiants yi fi jaar Nous, sommes dem nañ front dégradation des biens publics de l'État Vous faites que, l'eau est-ce que nous traitons de terroristes Nous, waxtaan dañ sommes. réew nous ñu def du pour ñun l'État a lui tout seul ne peut pas lutter contre le terrorisme Nous devons associer nit gens. la lan procédure d'urgence mois de mars événement FM. après on a entendu les discours d'ailleurs le ministre de la justice il est allé au Fouta en poulard. il a dit que y a des terroristes nous avons des terroristes nous avons won terroristes ñu tegal terroristes parce que nous leen jox état lu Nous la mënuñu toog du matin au soir

Mais nous, nous contrôler. On va se poser des questions, on va avoir des interrogations légitimes. Le vrai débat aujourd'hui, le terrorisme ne serait-il pas un prétexte pour museler les citoyens sénégalais Le terrorisme ne serait-il pas un prétexte pour restreindre les libertés Et pour moi, ma personne, cette loi, elle est liberticide. liberticide parce que tout simplement il na liberté Sans que dama déglu Djamil euh, sama quand je l'écoutais ma ne kii ñaari taxawaay la am doomu daara nekk intellectuel il a parlé de Guantanamo. loi bi nga ne xaj na nit ay seeni droit. Ah, loi bi ñu wote tey. bien sûr loolu laa gëm man. pro promulgué pareeguma sax pour man sax elle est anticonstitutionnelle parce que la constitution du Sénégal. <laughs> bi nga xam ni Ablaye Wade gàcce ma. barki démb ngeen doon féete 23 juin Sénégal 10 ans 23 juin tey ñu tollaat ci di ñu wax ci assemblée bi ñu ngi tëgg loi yoo xam ni am na ñoo xam ne ànduñu ci fii ci régime bi lañ fi gis loi bu ñu tëgg biir assemblée nationale parrainage pour dégager ay nit. Mm. lii nii ma gis na dalul suma xel dalul xelu sénégalais ñu waroon ñu ko leeral mais loi boo xam ni 24 heures chrono ñu dëxëñal ñu ko indil ñu ko bunkeriser assemblée nationale. ça n'augure rien de bon parce que ñun le vrai véritable terrorisme xaw mooy lan mooy ce terrorisme qui a valu aux jeunes sénégalais de mourir en mer sénégalais xam nga lu leen terroriser dépense. location gaz essence terrorisme foncier bi am daggat daggatee suñu suuf si terrorisme aquatique et maritime bi am jël suñu ay accord de pêche loolu mooy suñu ay question mais ñu jël di mbubboo terrorisme pour régler wala ay règlement de compte politique parce que man saa yu fi indee ab on peut parler de cette loi. de cette loi mais mais mais heureusement que dans la loi c'est une question d'interprétation vous avez votre interprétation. moi aussi j'ai la mienne. vous avez votre interprétation. moi j'ai la mienne la mienne me dit que cette loi elle est liberticide. cette loi il faut pas également que nous fassions que terrorisme. même dafa exister. Ah, mais c'est que mais war ñoo mbubboo terroriste. soo ne ne xam nga tey jii. kenn weddiwul terrorisme pour régler yeneen compte. xam nga tey yëpp dañoo yendoo wax ci loi bi. man nag yàlla dimbali na wax dëgg yàlla am naa tuuti expérience parlementaire xam naa tuuti ci loi dama jàpp ne askan wi ñuy seetaan li ñu war a fexe mooy la ma mujjee ci sama ñaan ga nu fi jógee mu am wax ji amal leen njëriñ comprendre lan moo ne ci loi bi. gis nga danger yi ci nekk buñ ci àggee dinaa ko wax waaye li liñ ko jiiñ ne loi liberticide la kon depuis 2007 ñu ngi ci loi liberticide nañ ma wax ban loi ban liberté liberté la ko xañ Sénégalais yi xam nga man gis nga nen dama wax sànq ci départ ba ne la diggante dëgg ak savane ba aw ma ci Siw يقبلوا يا ابويا ولن